ngi sant yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi di nuyu ñëpp di nuyu monsieur le maire di nuyu waa groupe groupe Kirène di leen ñaanal yàlla ndax li vraiment fier ci Saafeen yëpp la rawatina commune jas Diass euh, ñu ngi ci am bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla fay leen yiw ci li ñuy def mais yàlla def ko tuyaaba yàlla baril ñu mel ni ñoom ci commune bi ndax loolu aussi vraiment avancement commune bi la ci wàllu diine lii moom vraiment am na solo trop maanaam nit ki ñëw mais déglu fi yi diine yokk ci diineem vraiment loolu lu am solo la ci ci ci gox bi. moom muy di gan daal di ñëw fii ci seen dëkk bi daal di fi sanc li nga xam ne moom moo di usine na lan ngay wax ci loolu est-ce que tamit jeunesse bi gis nañ ci seen bopp. bien sûr parce que monsieur le maire mu ngi koy wax léegi euh, am na ñu nekk ci usine bi mais xam na bu dolli woon ñu gën a tey gën a gën a nangu euh, ndax euh, ñun dañoo nekk nit ñoo xam dañoo bëgg lu ñëw ci tund bi rek vraiment waa bi gis seen bopp. ndax loolu rek moo moo mooy njëriñu bu fekkee usine nekk na fi loolu mooy njëriñ li maanaam tund bi gis seen bopp ci ci ci usine bi vraiment am na ñu fi ne di di liggéey daan seen doole di di am astuut waaye euh, en même temps ñi ngi dimbali ay dimbali yoo xam ñu ngi koy joxe ci commune bi lii xëy na ci la bokk yàlla na yàlla fay leen yow. waaw dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu ndax xam ngeen groupe Kirène ñu ngi fii ci commune Diass euh, bu ñu nee dañuy tàmbali ni tàmbale ko commune Diass lu rafet la waaye bettuñu trop ci groupe Kirène ndax groupe la boo xamante ne. ñoom déjà dañuy employé ay ndaw yu dëkk ci dëkk bi mais surtout dañu am aussi le sens euh, du partage et de la responsabilité sociale d'entreprise euh, ba tax na kon bañ ñu waxee rek ñun waa commune Guesso dañ leen ne ànd nañ ci ndax weeru koor weer la woo xamante ne weeru xéewal la euh, weeru partage la weeru jàmm la weeru ñaan la ba tax na koon ku ñu ci fekk si rek dañ koy rafetlu ñuy remercier bu baax le DG ak tous les travailleurs Euh, du grand groupe euh, Kirène bi nga xamante ne waa Diass dañ ndax ci commune Diass la implanté wu. c'est en ce mois béni du Ramadan c'est pour nous un, un moment extrêmement important d'être au rendez-vous des ndogu que nous nous, nous partageons. Euh, nous avons pour euh, habitude de, partager ce moment fort ici à Diass mais également la semaine prochaine à, à Kirène et nous le faisons euh, à chaque moment important particulièrement à cette période-là. parce que c'est un, un, moment aussi de partage, de réunion et d'échange sur euh, euh, beaucoup d'autres choses. Et euh, nous y apportons aussi ben, tout, tout l'engouement de toute l'entreprise qui règne, parce qu'il faut savoir qu'aux cuisines et à la préparation, il y a les, les personnes, qui, nos collaborateurs, hein, qui, qui, sont venus de l'usine, qui sont venus même de Dakar pour aider à organiser ça et pour euh, justement partager ce, ce particulier. Voilà, nous le faisons chaque année, chaque année un peu plus fort parce que de plus en plus de, de personnes nous, rejoignent. Nous apportons euh, notre, participation, modeste participation, mais également nous associons à cela eh ben, toutes les bonnes volontés et bien sûr celle de la, de la mairie, de l'imam, vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est ces moments-là qui sont forts pour nous et qui sont trop importants. Quelles sont vos premières impressions à la population de Gias euh, bah, elle, est, elle est assez simple, hein, l'impression, c'est que nous sommes ici chez nous. Donc euh, euh, nous sommes en toute aisance euh, en ce moment de partage et c'est d'autant plus chaleureux que de l'être.